asalaamaaleykum mbokki internet yi baaxoo seetaan info réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax eh, di leen ziare di leen jaajëfal eh, nag ñu ngi fii ci fi nga xam ne mooy ndaamaatu route nationale bi yaakaar naa bi nga xam ne moo jëm ci hôpital bi ambulance yi fi lañ war a jaar yu bëri fi la war a jaar dem ci biir hôpital bi waaye gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci tali bi mooy tali bi bon yaakaar naa at a ngi ne ñu di ko dund ba population bi nga xam ne ñoo nekk ci ndaamaatu sox ñoo pare woon jënd ay xeer yi suñu ginnaaw fas yéene koo defar waaye ba tey mënul yem ndax nga ne tali askan wi mënuñu koo defar mairie moo ko war a jéem a defar wala mu wax ak li nga xam ne mooy yi nga xam ne ñoo yor réew mi ñëw defar ko waaye yaakaar naa ba tey amuñu ci benn pexe ak légui ñu ngi koy dund hôpital bi dem na ba ambulance bu ñuy dem di jàllale sax dañuy teggi ndax ñu jaar ci yoon yi ndax yoonu bon askan waangi fi daanu saret yaangi daanu auto yaangi ni di cang suñu côté ndax ñu dem ñu dik lepp nak ñu daal dem askan waxtaan ak ñom yeen jafe-jafe lañu fi fiy dund ak li kañ la tambali bobu tay ñu di ko dund cheikh na sama cameraman top ma rek ñu daal di dem waxtaan ak askan yeen jafé jafe-jafe dund ci talibi nga xamne moy ndamaatu route hôpital tali bi jafe-jafe na manañ ne ay at la li nga xam ne moo gën di jafe-jafe bi daal mooy diggante tali bi nga xam ne moo nekk Touba Ndamaatu jógee gaar bu ndaw jëm hôpital moom yaakaar nañ ne at mu jot dina am jafe-jafe bu mel nii ba tax na ci nawet dañ ko baare woon dafa demoon ba oto mënut fee jaar ci loolu nag ci la waa koñ bi booloo jéem a boole seen alal jéem ko fee dindi biñ ko defeet am na ay gàllankoor yoo xam ne ni am na fi gàllankoor yooyu waxoon nañ état demoon nañ ci mairie wax leen ko ngir jéem xool nan lañuy def ba solution am ci ñoom it dafa mel ni ci loolu euh, lañ ci bëggoon amuñu ko ci ñoom biñ ñëwee ñu boole suñ doole mooy wut suuf luye ay bil ñëw fàkkaat tali bi garab gi fi newoon fii ñu fexe ñu jële ko fi euh, fàkkaat ko sëkkaat ko biñ ko sëkkaatee tamit moo demaat ba melaat nii li waral lii nag mooy dafa am ay récolte yoo xam ne mooy génn si mbedd mi régal yooyu e nag dafa am yaakaar naa ay branchement yoo xam ne moo ci am moo ci ne moo tax ndox mi di werse chaque jour ci tëli bi loo fi def ci xeer dafay dafay dafay dafay yàquwaat ba tax na bi ñu jëlee jël mujjee jël décision bi mooy xeer ya nga gis ci ginnaaw ñun ñoo boole suñuy dërëm ak suñuy ñaari dërëm jënd ko ñetti camion lañ fas yéene sotti sotteegul nañ benn ni bëgg a woo waa koñ bi yëpp ñu maasalewaat tëli bi buñ ko defee nag xëy na du doon solu doon doon lu koy saafara waaye dina doon luy tane ba nit ñi mën fa jaar. jafe-jafe bi nag comme ni ko sama mbokk mi waxee léegi nii rek nekkul loo xam ne lu lu récent la yàggu na trop quoi ça fait des années ñu nga xam ne daal ñu ngi koy dund des années mais bu njëkk dañu seetloon sax ko doon dund par hivernage bi lañu ko daan dund bu mosaan taw rek ci ci jafe yi ci lay feeñ mais léegi dañu gis ni même bu tawee ba pare bu taw bi jeexee pendant des mois dañuy continuer encore di dund euh, difficulté yi. mu jëmaat beneen nawet parce que boo xoolee yoon bi nii fi toll nii ñun nawet nawet nawet passé na lu yàgg ndox mi ne fi nii kenn jéemu si dara ci lañ nag jóg ñun ñu ne comme ñun ñoo fi yewoo te état vraiment tamit ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñoo ko doon liggéey kenn gisu leen ñoom ñu def si benn jéego commune bi tamit gannaaw état moom moom moo fi toogal état waaye tamit ñun en maintes dem nañ fa wax ak ñoom wax leen suñu jafe-jafe yëpp. waaye daal wax dëgg yàlla daal ñoom defu ñoom defuñu ci benn jóogo waaw waaw ñu ngi ñëw la ñuy wax buñ ñu waxee ni ñuy dina dégg nañ ko dinañ leen woo mais daal ça fait des mois amuñu ci benn pexe ginnaaw gi nag ñu jóg nañu ñu ne léegi nañu daal vraiment jéem a xool li nga xam ni moom euh, mën nañ ko waaw mën nañ ko ci def parce que tamit ku la xam nañu defar yoon yombul waaye au moins ñu fexe ko débloqué ba nga xam ni doomu aadama yi dinañ mën dem tranquillement oto yi camions yi ku ne xam ne ni fi yoonu camions yi la sareet ji tamit même chose fi bëree toujours sareet yi dañuy daanu jigéen ñi di fi gaañu xale yeeg yooyu yëpp dañuy am yooyu problème camions yi tamit dañ fiy jaar dañu ñëw ba fii foncé dañuy obligé décharge de bagage yëpp ñu fexe génn ba pare doo ko waa seen i bagage parce que yenn saa yi dañuy yëpp ay clients ñoo ba fii clients yi daanu ñii am ay gaañu gaañu ñii seen dugg tuuru te teewul yoon yàqu rek moo ko waral te ñun weeru dee dañuy fay wax dëgg yàlla am jàmbat nañ bay bëgg a dee gisuñu kenn ku ñu ci jàppale na bu ñu ne budget Touba bi borom saret di def nañ ci lu mucc ayib ndax yaakaar naa weeru ne ñaata ngeen di fay weer wu nekk saretu mbaam bu nekk mu ngi fay 1000 francs waaw léegi saretu mbaam bu ne dafay 1000 francs ndax jaadu na ngeen di dund jafe-jafe yu mel ni ci tali mu mënatu leen dem mënatu ah wax dëgg yàlla dañoo néew doole rek tamuñ ko ñu si jàppale mhm. waaw loolu la tey boo wax maire bi mu mën leen dimbale fii ci Ndamatou lan nga koy wax ah xanaa mu jàppale ñu rek ngir yàlla te yàlla rek tax mhm. wax de moom mhm. mais du leneen jafe-jafe yi soxna si ni nga ko waxee doy na waar lool ndax jafe-jafe yaakaar naa 2005 2006 la commencé 2005 2006 ba léegi yoon bi nii la mel jafe-jafe yoo xam ni saret yu daanu jigéen ñoo xam ni sax dañuy toll en état ndax fii jigéen ñi wisu si hôpital bi wala ñi feer di xëy suba gi dem hôpital yi fii dañuy ñëw ba fii saret yu daanu dem na ba sapeur bu Tuubaa man xamee nañ sama numéro ndax boo leen wooyee dañ naan la jox ma say affiliation sa sa numéro téléphone ñoo tudd fa liggéey ma jox leen ñii boo man la ñes ndaamaatu rek daanaka xam na léegi ma leen di tax ñu leen di wooye ndax fii ñaata yoon la fi nit damm sama kanam man ma jël woo sappoor sappoor ñew ñu ñu évacuer hôpital ndamal même ambulance bi nga xam mo mo dëkk fi di fi jaar bu fi da fay am circulation bo xam lu mu gàtt gàtt dana dana fi perte 5000 yu mat sax. lii nag dafa nek lo xamante ci yag na fi depuis ay at ni lay démé parce que tali bi dafa nek tali bo xamante ci si tali bu important la parce que mo jëm ci hôpital ndamato bi mais fiñ tuli limi yak mën yàq wax nu toll parce que nawet yi fiy jaar di Euh, ay ay ay matériel mu yàqu ak ñi fi daanu di dafa bëri boo xoolee ni mu demee nii rek nga xam ne c'est euh, ba looloo tax nag ñu ñi nga xamante ñooy ouvrier koñ bi ñuy mobiliser wu ànd euh, di dajale suñuy fukk suñuy juróom fépp foo ñu xam ne maanaam am nañ fa yaakaar ñu dem fa li jëm fa dara dajale ko ci lañu créé xeer yi ak lu ko jiitu ginnaaw bu loolu weesoo biñ demee ba nawet ba màggal bi ndee ba màggal lafi fi ban kii euh, ban GIE ñëw maa andi fi ay ay ay bulldozer euh, évacuer suuf su fi nekkoon ñu jàpp ne carrière lañ ciy defal ndax xam yaakaaruñu ne mën nañoo am tëli comme ça léegi tey bi ñu ko évacuer defaat sottiwaat fi comme ça suuf suuf su xong ker bi ñu sottee suuf su xong la ñëpp découragé te bi ñu ko fi sottee ci guddi gi ci la tawaat mu raba joo nga xam ne daanaka màggal gi mbedd mi moom dundut doxut dañ doon dévier après nag bi ñu xalaatee ne lii nag doxul nag ci lañ ci ma wut ay daal di lijjanti benn bill encore kooku nag moom muy ku baax taalibe ci dëkk bi la dëkk xam ne li jaaduwut ci lañ ko woyofal euh, ñu jox ko tuuti mu maasaleel nu mu fàkkaatal ñu suuf si dindi ko ba mu dañ moo nekk nii après ci lañ doog a jënd nag euh, xeer tasaare ko nii mais wax dëgg yàlla moom sonn nañ trop. boo xoolee nii li fi jaar gàllankoor yi bari na. saret yaa ngi fiy daanu yaa gis saret ne saret yaa ngi daanu. Eh, oto yang ngi di di di càng chaque jour eh, saa boo xëyee di nga gis oto bu fi bu fi am problème bu fi yàqu ñëw lonk ko di nga gis tamit saret yi jigen ni àndandoo di daanu seen dug yi jaxaso loolu mom jafé jafé la bo xamni ni même mairie bi xam na ko eh, dëkk bi ñi nga xamni ne fi ay responsable tamit xam nañ ko waaye dafa mel dañuy sétan ñun nak ñoo ngi def suñu kem katan en tout cas dal ku ñew fekk ñu ci ku demit bayyi ñu ci ñaar dërëm yi ñu am ak ñet dërëm dal dañ ko jëm di ko ci def di woo nag képp koo xam ne nii am nga ci xalaat wala ku ñu ci mën a jàppale waaw asalaamaaleykum ñu gis kon fu mel ne nii hôpitalu Ndaamaatu Bey ngeen ngi seen ginnaaw sa ku ne hôpital ne ambulance xëy fii leen daa jaar di yóbbu fi nga xam ne mooy yeneen yeneen hôpitaux yi ndax instant bi hôpital bi ndax duñu am jafe-jafe ndax ñu loolu loolu yàgg na yàgg na yàgg na hôpital bi moom euh, dafa mel ni euh, ñi ci dëkk bi daal bàyyiwuñ ko xel 100 pour cent que jafe yu mel nii moom bari na ko ba demee ba bi sax comme problème bu mel nii la am fi tolloog hôpital bi nga xam ne mooy ko ñu hôpital bi problème bu mel nii la am te dafa mel ni chaque jour kilifa yi jaar fi chaque jour ki bi bi jaar fi ndawi état bi tamit chaque jour ñu jaar fi waaye amuñ ci benn xalaat lu man ñetti at wala ñeent léegi nag jàpp naa ne euh, ambulance bi moom day dëwee léegi day dëwee il faut mu jaari tali guy mbind wala boog mu jógli corniche doo a ñëw waaye fi mu ne nii sax buy jaar fii da ngay gis problème bi am malade bu ci nekk mën nga cee jëlee leneen sax lu yokk lu yokk sa feebar. ndax mairie bi fàttewul waa Ndaamaatu ndax du jafe-jafe tali bi rek buñ ne nawet waa Ndaamaatu yaakaar naa képp ku fi yeewoo bu xiinee sam xel du dal rawatina nag lii ci tali bi nga xam ne nit ñi mënatuñ dem mënatuñ dikk ku ne dem ak dikk xam ne jigéen ñi jigéen ñi wéru ji lépp dañuy jaar ci tali sa yaakaar naa avortement lu ne mën na jur tali bi dara. effectivement euh, loolu moom euh, loolu la ñëpp di wax maanaam euh, Ndaamaatu moom daanaka ñu bëri loolu la ñu xamee ndaamaatu problème mu ndox ñu bëri boo ne ndaamaatu ak ndox mi mosuñu fi ñëw mais dañ koy dégg toujours ñuy wax problème mu ndaamaatu moom laa ma ko doon wax sànq fii rek euh, matu sax cinquante mètres am na kër goo xam ne fi mu toll nii problème la am ñoom dañuy dëkk ci ndox mi ah ba fi mu toll nii may wax ak yow nii nii bëkk dem rek maire bi mu ma koy wax moom ma léegi il ñoom ñu euh, génnewaat ndox mi te buñ ko génnee fu ñu ci kaw tali bi te ñun tamit ñu ngi defar pour yoon yu baax mais moom tamit xam nga mënul dëkk ak ndox mi day dem ba ndox mi day dem ba fees euh, ba génn bay dugg ci biir néeg yi il faut nag mu jël mu jël ay pompe pour génne ndox mi fi ci biir koñ bi tamit bu ñu duggee nii borom kër yëpp abandonné nañ fii li li si ëpp la majorité dem nañ seen yoon dem nañ seen yoon parce que tamit mun mënuñoo dëkk si biir ndox mi am nañ ci ñaari cas yoo xam ni jotoon naa ko fay wax euh, euh, mois yi mois yi nii am na fi ñaari robinet yoo xam ni ba tey ñu ngi continuer foofu noonu di continuer di di parce que ci biir kër yi ñu kenn kenn dëkkatu fa ñoom abandonné nañ kër gi ba pare dañu am problème mu tiwo yi fa toj dem nañ wax nañ ko wax nañ dem naa préfecture wax leen ko ñun ñëpp ànd nañ dem préfecture wax ko ñoom dem communauté rurale wax kook ñoom mais li ñuy wax rek mooy dégg nañ ko bind nañ ko léegi dinañ ko jox monsieur le maire loolu loolu la ñuy wax. bi ngeen demee gis ngeen préfet. gisuñu préfet sous préfet ba lañ fa fekk moom la moom préfet moo ñu joxoon moo ñu moo ñu joxoon euh, rendez-vous mais biñ ñëwee. li ñu wax daal mooy que ni moom dafa amoon tamit beneen empêchement moo tax xaaruñu waaw ñu mujj ñu boole ak euh, beneen waaye bu fa bàyyi. ne deux mois des ci màggal Touba kenn jaar ko fi bi ñu demee ba ne suba la màggal la fi waa mairie bi yónnee ay cataplan ñu ñëw daal di xolli tali bi bi ñu xollee tali bi ñun ñuy am yaakaar ñun ñëpp bàyyi suñu liggéey ñëw taxaw dinañ seetaan waaye bi ñu xollee tali bi def ñu suuf su baax sax latari lañ ci def suuf soo xam ni ban la moo ànd ak ndox mi nga xam dañ koo def mu 30 minutes yàlla taw bi yàlla tawee. fii nag fees dal ak ndox nga xam ne bu fi oto jaaree pour ñu oto bi day dugg ba sas si oto bi day tege ci suuf nga xam da ngay mujj ak jëli oto lonk ko mu doog a dem bi loolu amee ñu koy di ko dum ba màggal Tuubaa jàll ñu màggal Tuubaa ñu ne ñun lii mun ñu koo waaye loo gis ni dafa am boo bëggee saafara daa am fooy commencé ñu fi dem mairie dem fu xalaat rek dem fa waaye mairie moom lan ñuy wax ah man jàpp naa ne kilifa sax du wax loolu waaw kilifa gu toogal ñoo xam ne yow yaa leen yilif waaw jox leen seen kàddu ci gone yu ndaw ñu toog di la xaar waa koñ bépp mobilisé ñëw toog di la xaar duñ la gis sax waxuñu ñu nga ñu jox sa avis te jox nañ sa avis ñu woole koñ bi takki rajo woo bépp ñëw ñu toog di la xaar te duñ la gis. deuxièmement bi loolu jee jàllee ñu ne comme que lii am na kilifa yi nga xam ne waroon na leen jog seeti leen jóg na leen seeti kat muy Souran docteur Souran muy bonne volonté yi nga xam ne ndaamaatu gi la dëkke ñu jàpp ne yàlla dogal na am na leen yàlla may kenn ku ñu jóge nga jox ñu sa kaddu waaye seen kaddu man kaddu gone ma ko tànnal gone ko xamu dara moo ko tànnal ndax danaañ demal ngeen commencé bu ngeen commencé ngeen ñëw laa ñu ko buñ commencé tamit jëlaat nañ suñu oto def suñu gasoil kenn ku nañuy demaat ba ci seew na la kat commencé nañ ñii waxoon nañ ñii ne danaa jox temps de camion yi xeer ñii ne danaa jox li ñu waxe kese te tëli bi mérité wul loolu tëli bi jëm hôpital ndaamaatu ndaamaatu foo dem Sénégal xam nañ ndaamaatu waaw loolu daal na te fi mu ne nii suñu loxo jotee suñu ginnaaw mënuñu ko defar mais nag toujours dañuy def effort ngir ay doomu ñoo fi jaar. dafa mel ne population bi xamee wuñu leen defaru tali wala di defar loo xam ne tali jumtukaay boo xam ne tey oto yi a jaar wala sareet tey loo xam ne mairie la waroon mairie wax ak bu demee ba population bi di ko defar ndax jaax amoo jaaxle woo ci sam réew jaaxle woo ci sa dëkk fi mu ne nii waaw si danañ ci jaaxle parce que comme ni ko sama naataango bi waxee léegi rek ñun ay ouvrier lañ baaxoo def rëb tali waaye fii dee dëkkub sëñ Touba te comme ay jullit lañ ne ci yoon bi duñ seetaan suñu mbokk di fi loru tey ne fi lu métti métti danañ jël suñu suñuy ket dajale ko ngir ji ma defar li ndax lu jiitu lii dañoo njëkkoon a jël comme bi ma la wax léegi benn 4 francs mu maasale suuf si fi nekkoon parce que dafa raba woon suuf moo fi nekkoon dafa raba jowoon après ci lañ doog wut xeer bi mu commencé lee pare ci lañ doog a wut xeer sotte ko ci ba nit ñi mën fee jaar mbedd mi dekkiwaat mais lu jiitu màggal moom ak màggal mbedd mi dafa deewoon carrément am na 3 mois yoo xam ne mbedd mi doxul ñun ñoo ko développé. Euh, kuréel poussière xam ne am na jàngoro yu mar a jural nit ki ndax jàngoro yooyu du leen dab surtout xale yi nga xam ne ñoo fi dëkkee. waaw fi jeex du fi jeex toujours ma ne la ci ay jafe la ñuy dund waaye nag ñun ay taalibe lañ te comme ni ko sama naataango bi waxee léegi fii dëkkub sëñ Touba la am na yoo xam ne mun xamuñu ci lépp lu ñuy wax rek dañ koy wax ci ak teggin ba kenn ci gis saafara waaw boo demee Kër laat noonu la demee li dal li ñu dal moo leen dal Kër Baylaat boo ko passé tuuti à 100 mètres Kër Baylaat noonu la demee woon ba tey jii saafara wut waaye nag ñun li ñu mën mooy maanaam euh, def li ñu mën rek ba ke dañu gis saafara mais doy na waa trop am nañ ci lu ñu métti trop parce que fi ñun dem ak toujours nga gis camion bu paan te bala fiy jógee 20000 lay fay ñu doo koo lonk te xam nga ne loolu doy na waar ci dëkk Sëñ Tuubaa bii ndax maire bi leen mooy wuñ leen daal ndax wax nga leen seeni i jafe-jafe diiru ñeenti at jëfuñu ci dara ndax maire bu Touba am na importance fii ci Ndamatou waaw mairie bi Touba mom li ñëpp wax rek lay wax yaakaar naa loolu moom daanaka question la boo xam ne daanaka jarut laaj ndax mairie bi chaque suñu ñuy laaj mairie bi lan lay def mairie bi lan mooy njariñam ci dëkk bi loolu moom question yooyu yaakaar naa mairie bi ci boobu booy na seen nopp kooku moom maag Sénégal maag Touba waa Touba yëpp ci yam mairie bi lan mooy njariñam lamp yaa ngi nii yaakaar naa ne kenn xamut kañ la ko jëtaak lëndëm këris ci màggal gi ci après màggal gi lañ ko tàmbali di taxale ay quelques lampes ñoo fi tàkk am na ay poto yoo xam ne ñu fi daanu déclaré nañ ko groupe benn du ñaar ni mel nii dem nañ fa ñaari ay groupe benn du ñaar bind yóbbu fa te taxut ñu gis benn décision boo xam ne ñoom jël nañ ko wala benn engagement boo xam ne jël nañ ko ñoo ne mairie bi bàyyi na lii xel waaw loolu moom gisuñu ko bi nag moom ñi ma jaaxale noonu la jaaxale ñëpp. dëkk bi yaakaar naa du mairie rek moo fi nekk am nay kilifa yu fi nekk ndax ku ne dëkk bi xam ne euh, Serigne Mountakha moo ko jiite tey boo amoon lay wax kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu taxawu ndaamaatu lan nga leen waaw foofu tamit li ma leen wax rek mooy wax dëgg yàlla ñu bàyyi xel taalibe yi parce que tamit dëkk bi bu ñu ko dee wax tamit taalibe yi ñoo tax ñuy wax léegi nag nit ñi mënuñu am jàmm tamit di ci conditions yu mel nii nit ki mënul am jàmm fi mu toll nii yow say xale suñu waree jàng rek man samay xale bu ñu dee jàng rek tey ji damay tiit ci yoon yu mel nii nii sareet la ñuy yëg mën nañu yëg sareet daanu oui population bi nga xam ne tamit ñu ngi dund amuñu fu ñu loué parce que amuñu moyen boo xam ne moom la ñuy dem di fay location te nag dañuy obligé génn seen i kër man ñooñu laa gën a yërëm koñ bi ni fii daanaka fii ci ginnaaw li daanaka kenn nekkatu fi ñëpp génn nañ loolu tamit wax dëgg yàlla nag à part état bi euh, tamit euh, suñu kilifa yi kilifa yi nga xam ne ñoo yilif Touba war nañu tamit bàyyi xel ñun waa Ndamatou bàyyi xel xam ñu ngi dund ñu ngi dund ñu ngi dund lu méttee méttee métti te aussi xam nga Touba melul ni comme yeneen nga xam ni da ngay sol sol say xonk génn di manifester wu di yuuxu fii man ñun ñun jàpp nañ ni loolu ñun teggan mayuñu ko may mayuñu ko mais nag ñu ngi préparé nag pour dem ci vraiment ci autorité yi yoonu euh, ci xalifa général bi toog ak ñoom tamit wax leen tamit suñuy jafe-jafe parce que jàpp nañ ne xëy na ñun niñ ko xamee ñoom xamee wuñ ko noonu moo tax ñu ngi préparé pour dem si ñoom. bi loolu amee ñu jox suñu suñu tànk na léegi nañ def bon valantin léegi dem marché Ocass dem ci borom saret yi yëgal leen ko dem ci garage taxi yëgal leen ko takk ay rajo jëm ci koñ bi ñu yëgal leen ko kenn ku ne indi sa juróom ak sa ñaar bi ñu dajalee loolu war naa mat ay cinquante mille ci lañ dem loué benn bill ak benn machine ñu tonni lépp loo xam ne mairie defoon na ko fi muy fii ñu taxaw bu ngeen xoolee suuf su xonq si mairie ko fi defoon ndax tali tali la woon normal dafa amoon ay toj-toj rek bi ko mairie xool ñuy ko ñu am yaakaar ne kon da koy tali mu def fi lii lam fi def gën a yées ci lan dem def suñu bon volonté dem ñuy joxe ñaar ñuy joxe juróom ñu di defar lee bil bi ma la wax ak machine bi ñëw ñu xolli tali bi bi ñu xoolee li fi maire defoon nga xam ne suuf su bon la li nga xam ne ne bi fayé fayee bill bi fay machine bi dese nañ parce que ay 300000 wala ay 350000 jalo xeer bi ngay gis ni ci lañ ci jënd ñaari jël xeer pour tisaré ko ci wat ko ci pour xol ba xam dañ ci am solution waye soxna ci fi mala mala wax ni man yakarna 2000 ba lék ma ngi fi jafé jafé yiñ fi dund amna lo xam sax xel mënu ko wax waw ka mortel bu bu bu am urgence donc la fi gisul man ndax man li mala wax ni du lo xam ni man fi la dëkk fi la jàngé ñaw place bi maay may borom yaa may dégg kon lépp loo xam ne loo wax rek man maa koy dund buñ demee ba guddi gi xaj nga xam ne ñun ñoo fi nekk ñun ñoo xam ne dañuy guddee wàcc léeg-léeg nga gis camion boo xam ne day ñëw paan fii su paanee fii day mu jàgg day dem luy benn camion boo xam ne sëful dara ñëw mu féete ko ginnaaw an yar ko puus ko mu doog a dem vidéo yi sax am na yu ma ci yor yoo xam ne dana la ko jox baax na maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf sant nañ leen bu baax a baax di leen gërëm jërë ngeen jëf waaw kay jërë ngeen jëf